mbokk mbokk mu baax mu ni wax Bougane Gueye benn groupe de presse ñu koy wax des médias ma bëgg rek ñu dool leen te man ak yow xam naa kàddu bi daanu nga ciy jot sama mbokku taalibe la sama mbokku jullit la Bougane Sénégal sa Sénégal la sa dooma fi nekk say jarbaat say waajur ak say rakk tax façon xeex bu ne ngir jot réew mi yàlla joxulu ko bugaan loolu mooy dogalu bi yàlla na la neex média bi nga yore bëccee jaamarloo nguur gu bees gii du la jig te du jig ñi fay te am nga ay moyens pour jàppale leen xanaa bëggoo Sénégal bugaan li nga yàq ci tournée Casamance Fuuta du Kolda fu ne Kajoor saa boo déparé ay million ngay def ci sa oto yi oto yi poma yi topp la ngay wër Sénégal bugaan millions yooyu am na fu ñu xàcc askanu Sénégal son sonn wi comme def nga tournée yooyu yëpp te wut yàlla joxul réew mi li nga war a def mooy. tekki jaaj yi teg jublu ci xale yi nga xam ne ñoom lañ jox réew mi ñuy say nawle di say moroom di say wóor la ngeen ànd defar Sénégal Sénégal su baaxee baaxal la baaxal ma baaxal keneen mais am na loo xam ne boo ko xoolee dafay mel ne yow Sénégal ñorul la sa bopp rek moo la ñor moom daal bu fekkee mënumaa jiite keneen ku jiite ma xëpp ci suuf loolu daa duna ji ñu ma ko nag dama lay wax ne la rek may bañ nit ñi gisee noonu te am na fu muy toll. na nga jéppi de nguur gi ba mu toogee salaamaaleykum mayoo leen sax quarante quarante jours rek commencé attaqué jël ay journalistes yoo xamante ne siin ak i chroniqueurs yoo xam ne amul benn diplôme nga tëdd dañ ci télé bi heure bi ñu xëyee rek lu nguur gas rek ñu suul di leen xasaka saaga rek bugaan ëpp nga loolu xoolal sa bopp dilu lu sil ni ngay doxale réew mi sam réew la kenn ëppale la fi tey bu doon tàkk yaa ci gën a perte bu doon tàkk kenn du gën a perte ndax mënoo gàddu sa immeuble yi mu mënoo gàddu sa biens yi comme yàlla suñu borom jox na réew mi ñi teg seen loxo jàppale leen loolu moo la moo la jig te moo gën ci yow te ñu bàyyi xarab bi metti na donte du waxuñu force nga ànd ak ñoom politique mais déedéet mais am na loo xamante ne si ne sabotage la sabotage baaxut. maa ngi lay jéggulu ci kàddu yi waaleykum salaam wa rahmatullah